dal leen ak jàmm seen vidéo di jours vidéo tey bi nag dafay àddooti si président Ousmane Sonko comme li sénégalais yi leen li ñenn ñi di wax Ousmane Sonko ak yeneen yi ñoo yem te dañuy fàtte que ne kii di président Ousmane Sonko du politicien non non président Ousmane Sonko dafa ñëw ngir nag changer dox ni nga xam ne noonu la politiciens yi yore woon Sénégal. Eh, di ko doxalee réew mi ba tax comme baatu gatsa gatsa bi nga xam ne doon nañ ko dégg am ñuy wax que ne nag benn politicien du ma jaral may xeex te dañuy fàtte ne kii di président Ousmane Sonko du politicien kon nag ba tey gars yi ab politicien jaralu leen ñuy xeex kii di président Ousmane Sonko jëmmam taxul gars yi di génn di xeex noonoo waye nak dafa am lu tax loolu nag lan li ni bàyyi ngeen ya, seetaan vidéo bi révélation yi nga xamné nak def nañ ko ci mu nek ay jangat yu ama ama am solo ñu baye leen ngeen teewlu bu leen faté di abonné aussi di like vidéo yi di leen like dina ci am solo dañu def moy ñu bëgg dugg ci bop nit ñi mooy benn politicien jëru jëru xéxal wa ben politicien jëru xéxal mais ñun ki andal du politicien day def politique de développement pour toogee mën développer réew mi loolu moo tax ñu ànd moom di xéx dañoo bëgg xeex pour réew mi développé mais xeexuñu pour moom mu toog pare di noos foo loolu tam foog gars yi bàyyi ko xel quoi te seen affaire théorie yi théorie ko bàyyi dégg nga euh, fii euh, ngir baal ma ci wax ji maanaam sa soxna bi nekk sa kër sax sa soxna bi nekk sa kër sax ceeb ba muy togg yaa ànd ak moom ci xeex ba parce que yaa dem xeex yi dem liggéey jox ko mu togg jox la nga lekk dégg nga euh, boo amul benn leader. xeexal ko ba mu yëg pouvoir mën naa développer sam réew jërul ngay sonal sa bopp dégg nga gis nga lii lii lii lii ñuy wax nii euh, benn politicien jërul xeexal benn politicien jërul jërul xeexal bu politicien ak kuy def politique de développement du benn bokkuñu parce que politicien xam nga ban moo jërte xeexal bi wor waaw politicien day wor kooku jërte xeexal parce que soo xeexee moom tamit ba mu gañee bu gañee da lay wor mais du du Seydina Ousmane Sonko mooy war nit ñi de parce que li li li mu daj fekkoon ne poosam képp ko ñor wala wala wala wala jëmmam kese wala fameem kese bu ko neexee dem dugg ci pouvoir bi ana ñu dugg ci pouvoir gis ñuy xeexee kenn wala ñu leen tëj kaso amut si ñu ngi ñi ñi yor lu leen lu leen leew doom moom yi état sonalu leen mais am na ci ñoo xam ne li ñu yor léewut état sonalu leen ah ça veut dire que moom yow mi bëgg mu yéeg pouvoir développer sa développer sa réew boo ànd moom di xeex da ngeen a ànd di xeex Ousmane Sonko bàyyiwut bàyyiwut bàyyiwut tëddul këram di woo kenn ne ko kaay leen kaay leen ñu dem ñu ñu dem liggéey réew mi ngeen farma ma liggéey réew mi loolu la wax. gars yi bu ñu la dugal ci ñoom fara yow xëy protéger benn njëriñ xeexaan moom li muy def nii xeex la parce que am na comme faral te mi ngi koy mi ngi koy nu mu a def ba Ousmane Sonko la toog mi ngi koy def loolu rek xeex la te mu ngi xeexal politicien boobu noonu cest à ñoom dañuy dañuy toog ci nen di xasum nen c'est-à-dire li am ci réew mi moo doy waar te yàkkamti mu dañ nag te ci kattan yàlla ak mbaaxam dana dañ quoi waaw parce que réew mi bëggatuñ boroom xam-xam ñi ñi ñi ñu jiite bëggatuñ borom xam-xam bëggatuñ ah, maanaam daanaka ci ni ma ko mën a waxee mooy ku baax parce que fii ku baax ñu ngi téléchargé euh, benn waay bu mel ne euh, Fara wala wala wala wala Saa Touba saa xombal bu ku la yàq koo xam ne si day toog di la yàq. loolu moo tax réew mi fan la jëm fan bu àndut ak yow moom sa bu bu borom xam ànd àndul ñoom moom ñi ngi teel a ko la yàq moom daan ko am te daañu ko am bu ñu ko lijjantee rek am ko ndax xiifal na ñun ñii xiifal xiifal am ñoo xam ne am nañu seen ngor dégg nga su ne nangam ngay saaga diw rek ñoom acca bisimilah dégg nga mais ay politique bi ci bi jëru xeexal naa ki la koy wax moom am na leader ki la wax yow te Ousmane Sonko mii ñu naan daa violent dafa def nangam dafa def nii bii leex bu doon def politicien bu xëyoon tey tey tey def déclaration ne ah man de euh, maa ngi dem ànd ak euh, président liggéey parce que xam naa ne mooy jàmmi réew mi mooy def nangam ak nangam ñi koy xas ñëpp da nga gis ñu commencé di ko tàkk kon kon moom ñàkk xam-xam taxul ñu ko tàgg ñàkk ànd ak ñoom a tax ñu di ko tàgg loolu nag ñun ñi ànd ak moom ñun ñoo ko war a xam bàyyi leen ñuy wax rek dégg nga xamna ne dal limay wax ci gatal ko moy bari na ñoo xam ne moom yaakaar naa bu ëllëgee moom ñoo mbalitu mbëggoos ma li bolé waaw parce que ku jëriñu dara askan yi mom jëriñu dara riw mi lu xas ci saaga kisi kisi kisi kisi kese xëyoo gontu liggéeyoo defo dara te war a liggéey ñaa ñu jox la ay poste ndombal tànk yoo yo xamne da nga wara a liggéey réew mi liggéeyoo ko mom balé rek Ousmane Jonko mako wax Ousmane mako wax te xamna naa dana ko def waaw Ousmane Sonko kay du waxantu Ousmane Sonko doo bokk ci yi waxantu moom Ousmane Sonko bu naree waxantu toog këram toog kay maa la ko moom bu naree nekk di waxantu wax lu mu gëmut non day toog këram day toog bàyyi këram kenn seexalu ko lem dégg nga kenn teew ko dugg ci gouvernement bi kenn teew ko am ci milliards yi comme ni ko gars yi amee yaa kon li muy wax kay ñun dañ koy mën a gëm rek waaw Sonko du gars yi de saa waaj Assane Assane Sonko du gars yi gàtt sa ji moom yéen moom. mo affaire nga bu moy affaire mo minorité bu ndaw la kooku mo munta gass gassa kenn waaw parce que nit koy gass gassa tamit dalay def ñun bu boobaa duñ def kenn dara ñun mom bu boobaa liggéey la ñuy def liggéey xanaa nii du fekk do ko fekk fu muy liggéey nan ko gassa gassa ñi ko dañuy liggéey dañoo jàkkaroog askan di duma rek mo tax ñu ne leen leg gassa gassa door fayu loolu la tekki di xari wat la yëkk japp wulli bam noy nepp yobu kataar japp xari fa sàll wulli bam noy nepp wulli ay dossier sax laay ya, wax astaghfirullah ay dossier ba mu nooy tege nee jublu ko ci jublu ci Sonko ah ñu ne déete waaye mu mu salafise ko terrorisé ko robe réew ko lu ne mu ne ko moom moom nga mu wax ko ba mu sonnee dana ko léegi nag dóor fay mooy gàtta gàtta ji rek gàtta gàtta jooju da ngaa yaakaar ne ñëpp a ko man ni Seydina Ousmane Sonko di wootee gàtta gàtta da ngaa yaakaar ne ñëpp a ko mën a am fii bu réew mi bu dee daw la booy wootee gàtta gàtta kenn du la faale te réew mi ci kattanu yàlla bu ko Pastef yoree tànk développement lay jël boo fi wote gàtt gàtt gars yi dañ lay seetaan yow dong nga fay nekk di wax ak a yëf waaye kenn du la faale waaw lu leer laa la wax nag ay fayantoo yi amu fi de ay fayantoo amu fi gis bu buñ toogee Ousmane Sonko bu toogee du jàpp kenn di ko tëj da nga maa tëjoon wala da nga maa saaga wala da nga nangam yaa ngi dig day liggéey de waaye minorité bu ndaw ndaw moo fi des Ousmane Sonko ñun ñooy ñun ñooy mi di ñun ñi wax gàtt gàtt ñooy réew mi di sëñ bi koy gàtt gàtt santeer bu booba ñooy réew mi di asan ñun ñoo ëpp ci réew mi gatta gàtta ji bis buñ toogee fi lay dàkk ci lay dàkkee dégg nga wax bi parce que boobaa xam nga réew mi développé monsieur hmm? parti bi yëpp Sénégal dañoo bëgg réew mi développé te am réew moom bu demee ba développé moom ah benn euh, benn bu ndaw maanaam soixante dix pour cent yi Sénégal fi mu toll nii dix pour cent dañu bëgg réew mi développé parce que trente pour cent yi moom développé nañ mooy ñu ne ci euh, état beeg ñu ko jege yooyu. dégg nga mais soixante-dix pour cent yi nga xam dañu bëgg réew mi développé bu boobaa bu réew mi dee dox di dem dégg nga lii ñuy tal duñ ko tal xam nga lii nit ñi tal gàtt sa gàtt yii boo gisee mu yaatu réew mi doxut mi demul fenn boo demee secteur public bi fenn doxut napp gi doxut mbay mi càmm gi doxut commerce bi doxut ah euh, hôpital yi boo feebaree doo faju sécurité amut loolu moo tax mu metti loolu moo tax gàtt sa gàtt bi ñu ko wootee mu metti du dëgg mais bu fekkoon réew mi day dox gàtt sa ji du feeñ sax du génn mais réew mi dox secteur public bi secteur bo laal fo laal muy metti Sénégal yaramu magat la feppay feebar fo laal day metti Sénégal ci bopam mo feebar feebar Sénégal bop nak bok gis nga boba boko fajé ko fajee kat sagata ji nga gis ak ciow li bari yeeg yep manam majorité Sénégal bi dañu andu ci ni état bi doxé rek waye majorité bi kay buñu ñu pouvoir and ci ni état bi doxé état bi dox jëm fu bax hmm ñu ko yaakaare bu boba lii nga gis ni yep du fi am yaangi ngi boobaa li fi li nga gis ñëpp du fi am de li nga bëgg a wax nag man xam naa ko mais yow xanaa yow <laughs> jamono Abdoulaye fekku la fi Sonko jegewul Abdoulaye sax àgg ko ci wee sax wee wee sax àgg ko fa Abdoulaye boo gisee Abdou Diouf daan ko jàpp di ko tëj tëjee yu bari yi bu ko bàyyee bu amee bu demee bu am ba xam ne mi nga am doole mu jàpp ko tëj ko ci kaso bi dégg nga man jamono Abdoulaye te xeex naa xeex boo xam ne mosuma xeexuma ko ci Sonko te xaaj bi ànd ak Ousmane Sonko yëpp xaaj bi yëpp yëpp yëpp xaaj bi Abdoulaye Wade la daan àndal. dégg nga xaaj bi yëpp nag laa wax xaaj bi waxuma la ñëpp de dégg nga parce que ñi am ay vingt ans ay vingt cinq ans moom jamono laa loolu fekku leen fekk nañu waaye xew xew xeex waaye ñun ñu am ay trente cinq ans jëm kaw quarante ans jamono Abdoulaye Wade liñ daan xeex ci Abdoulaye Wade xeex xeexuñu ko ci sonk man li ma xeexal Abdoulaye Wade xeexalu ma ko Sonko sax dégg nga waaw xeex bi kay Abdoulaye Wade ko njëkkee woon <laughs> ay Cheikh waaye incha ñaanal yàlla léegi 2024 ñu gañe réew mi dégg nga 2024 ñaanal yàlla ñu gañe réew mi parce que loolu noonu bu fekkente ne bëgg réew mi développe loolu arrangé wu la béyu dee ñu ñëw ne ko doon ko <laughs> de l'élevage kay lañ ko war a laaj mais du Sonko lañ ko war a laaj walla ñun hmm? xel la ñuy yore réew mi xel mais du doole lañ koy yore du du du du lenn du du ay communication lañ koy yore. communication moom fu réew mi toll daañ ko wax économie bi toll daañ génn wax ko foofu moom bu dee bari wax moom foofu suñuy wax moom foofu lay bari jëm moom waaw fu réew mi toll daañ ko wax sénégalais yi pour ñu man di ko bàyyi xel dégg nga waaw waaye nag génn di wax ay ay ay kasaw kasaw moom duñ ko def wala ko wax ñu tontu la déedéet waaw sontoon ko dafa yor lu mat sëkk sëkk la lu mat sëkk waaw parce Pastef Pastef sama classe gaa nga fa xulookat ñu ngi foofu lu mu laaj ñoom mën nañ ko bu dee xuloo la laaj xulookat yi mën nañoo ñoo xuloo bu nekkee ne wàllum yoon la am na ay ay avocat nga ay ay ay ay ñu jàng ba mën a doon ay juge bu nekkee ne wàllum transport ay transporteur nga fa Pastef ñëpp nga fa bu nekk wàllum médecine ay docteur nga fi dégg nga bu nekkee ne maanaam daal lu mu laaj lu réew mi laaj bu boobaa mu ngi biir Pastef parti passif bu boobaa nak mom president Sonko nak mom li ko war xam nga lan moko war moy manam fi xotteeku ci senegal fi xotteeku ak fi bën bën yi senegal yor ak nor-nor yi ak nuux-nuux yi mu dem nokati ko ñaw ñaw ñaw xotti xotteku yi nokati nuux-nuux yi yaay ngi pax yi fini yep mu sakk ko pax yi pax yi lek kay mu yoy yep yeen gouvernement bi limu yanu mu wacce ko yenni comme ni def mairie Ziguinchor bi. bu boobaa loolu lay tal waaye du tal bëyu dee wala ginaar gu dee wala kii bu dee mu génn wax bu boobaa am na ñu ko man a waxal muy sama saar yi bu bëy deewee ku ma laaj lu ko rey ma la ko bu mu xar deewee ku ma laaj lu rey xar mi ma ne leen ah yàllaa ko rey wala pikir nañ ko wala pikiruñ ko boobaa yooyu man nañ koy laaj waaye du Ousmane Sonko dañ koy laaj bu ginaar deewee noonu aw yoo sax bu deewee bu boobaa man maa yor responsable boobu noonu man lañ koy laaj lu rey yooyu ku yàlla reyee la jël nit ba mu ba ba mu tàpp ko mu dee dinaa la ne da koo tàpp mu dee waaye boobaa moom Ousmane yooyu moom euh, du luñ koy laaj moom waaw bu boobaa kay xam nga la ñuy laaj Ousmane Sonko bu un an ñu laaj ko bilan te balaa ñoo laaj bilan sax den a génn wax bilan bi moom ñaanal rek.